L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نوغي نيانات لين دون نيان رك يالا ديفال نيكو ديفال كو مبولم جوليت defal ñu tawfiq defal ñu nasr waaye defal ñu yusr noo ngi ñëw ci bateau de sauvetage nga xam ni moo doon nekk ñaareelu bind ci suñu toogaay buy mujj tey ñu ngi ñëw ci responsabilité wayjur ak responsabilité doom ci pàppam ñu jël ci benn bind boo xam ni dana koy sës ci benn yonent bu yàlla yónni digganteem ak pàppam sunu jàngatee foofu dinañu xam ñun lan moo ñu war suñu diggante ak suñuy wayjur ndax doom war naa woo pàppaam ci yoonu njub walla déet ndax pàppa ku la gën a jege pàpp amul pàppa ku gën a jege doom amul aabaaukum wa abnaaukum laa taalamuna ayukum xamuleen ku gën a jege njëriñ yonent yàlla ibrahim عليه السلام يالا داكو يوني مو نيك نداو وايي تيرانغا بيكو يالا جوخ مو بوغوكو بوك اك واي جورم دا خام نغين ني لو باخ بوكو يوري دابور نيغا كو ورا نديك يينه موي سا نداي اك سا باي اك ساي فرير لول موتاخ يالا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو wa anzir ashirataka al aqrabin sa mbokk yi la gën a jege na nga leen waar Ibrahim gis ni pàppam mooy jaay li gën a bon ci dëkk bi su ma ko waxee mën ngaa jàpp ne drogue la bon na waaye am na lu ko gën a bon mën ngaa jàpp ni sàngara la bon na waaye am na lu ko gën a bon mën ngaa jàpp ni lu bon lu ne sa xel nga jàpp ni Ibrahim pàppam loolu lay def ba tax mu di ko woo waaye Ibrahim lu bon li gën a bon te pàppam di ko def mooy ñiy jaamu xërëm moo leen yombal ñu mën ko ndax moo leen di tabaxal yàlla yi maanaam pàppam ingénieur la ci tabax yàlla maanaam ñoom la ci tabax yàlla wala nga ne architecte la ci dessin ne yàlla kon dëkk ba ku fa am yàlla di ko sukkal di ko sujootal di ko rukool bu pàppay Ibrahim nga gën a bëgg ndax moo gën a mën a tabax li nit ñi bëgg Ibrahim ndax dafa topp yaram rek ne naa bàyyi sam ndax kilifa la déedéet waaye xam na ni pàppaam lii muy def baaxul kon yow miy toog di ma déglu so bi ni sa papa dafa nekk ci lu yàlla gërëmul na nga ci waxtaan ak moom te bañ a tàyyi fam benn jigéen ndeysaan buy mettit lu lool te na ngeen ñaanal ko yàlla li papam nekk mu génn ci ndax moom loolu metti na ko lool lool papam nattoom mooy dafay wër di tiriande nit ñi rek loolu mooy nattoom wallahi nattu te moom loolu metti na ko moom ak i frère ñu ngi liggéey di góor góorlu seen pàppam mi ngi liggéey te am na wërsëg waaye ay problème ci kaw problème plainte ci kaw plainte rek lay dund heure bu nekk rek ay ñëw di kaas lekk na ma nàngam ndax na ma nàngam liggéeyloo na ma fayuma nàngam nàngam loolu metti ko lool mu yaakaar ni war nañ ko ci mën a ñaanal ak it jox ko orientation orientation bi mooy bul bàyyi waxal kilifa la bul jàpp ni mukk boo waxee mu saaga la wala mu jànni la dafa war a tax nga bàyyi déedéet sa papa mun nga ko woo ci yoonu njub mu daggal la saaga du ma sa morom du ma sa nàngam wala mu ñaanal la yàlla na nga alku yàlla nga nàngam ñaan boobu du daal dan moo tax ñaan bi du daal mooy papa ji dafa nekk ci dëng doom ji bëgg koo jubbanti su fekkee ne loolu da ciy mer ba di ko ñaanal naan ko respecté woo sa papa moom papa moo respecté wul boroomam d'abord kon doom ji bul tiit ni mukk sama papa la su meree daf may wàññi dara déedéet lii nga koy woo même bu ci meree du la wàññi dara ndax xam nga ñu newul ci njub nekkul ci njub am na ku ma mës a wax daaw jéeg na ma man sama papa li ma metti mooy day day naan rek day naan xam nga loolu natt la kenn bëgg ko kenn buggul am waajur boo xam ni ci koñ bi kenn respecté wu ko Ibrahim papaam wax naa la léegi li gën a bon ci dëkk bi moo koy def ndax ingénieur la ci tabax yàlla moom mooy tabaxal gaa yi li ñuy jaamu Ibrahim war koo woo war koo yedd ndax papaam day toog day tabax yàlla ba pare toog di ñaan yàlla bi ndeysaan fa la dof yem moom moo ko tabax pentiir ko jubbanti ko jox ko melokaan bu ko neex ba pare naan ko yow laa yaakaar loolu bu leen ne ci ibrahim leem ñun daf ñuy dal ñun ñun ñoo gën a ibrahim ñun da ngay jël sa xaalis sa poos préparé ko xew-xew jot nga jël oto dem ba ci sa kilifa yëkkati ko jox ko ko ba pare ne ko yow laa yaakaar léegi moom lan la yaakaar ci yow moom moom bu du woon ak yow ndax moom dina exister bu woon ak yow ndax moom dana tedd kon yow taalibe bi yaa ko teral ba pare yaakaar ni moo la teral léeg-léeg nga gis ku yëkkati dara jox ko ba pare sukk jooy yaa tax yëf yi dox yaa ma ko yombalal fekk moom mi ngi naan ci xelam waxoo dëgg de yow mi yaa tax mu dox waaw ndax oto yi rafet yi kër yu jekk yi bu dul woon li nga may jox yaag sa morom du ma ko am kon diggante taalibe bi ak sëriñam taalibe bi moo teddloo sëriñ bi mais dafa gàtt xel jàpp ni sëriñ bee ko teddloo wallaahi ñaanu ma ko yàlla bu taalibe yi xëyoon benn bis benn xew-xewu diine ñëpp grève kenn demul ngeen xam ni li olof lépp dëgg la lépp dëgg la ñu jàpp benn xew-xewu diine rek auto yi grève ñepp grève kenn demul ñaari fan ñu jappat ko benen bis ñaari fan ñu ne no xamna da amon problème nañ leen ko jappat kon yow yaangi jëriñ nit ki ba paré diko yaakar ci liñ koy jëriñ loolu moo loolu mooy dal papa Ibrahim yett yàlla ba pare naan ko yow lay jaamu yow laa yaakaar yaa may xettali mbokk ibrahim gis ni papa mi mooy bunt bi il faut mu daawa ko su ko daawa ba mu ñëw mën naa bàyyi li def te li def baaxul borom bi moo ñuy nettali ci respect bu ibrahim am ci papam bi muy wax ak moom borom bi ne id qala ibrahimu li abihi ya abati lima tabudu ma la yasma wala yubsir wala yugni anka shay'a ibrahim ne papa ji waaw man day dama la bëgg a poser benn question papa ji ne ko ban la mu ko papa lan motax ngay jaamu ludul deg du gis te du jeri dina deg, dedet bant la bant du deg xeer la bu tabax du deg photo la bo fi tek du deg xam nga bo jëlee sa photo serigne taf ko sene ko yow la yaakaar dimbale ma bi yaangi wax mais mom jinne seytaane yi ñoo toog naan la waaw dëgg la de dëgg la rek nga wax parce que dañu lay nëqal mais yow benn photo benn këyit bu ñu desee deseene benn nit nga jël këyit boobu mu rëy ci yow lool lool lool comme li ma nettali barki démb Medina jamono inondation bi benn kër goo xam ne ndox da koo nangu ba waa kër yi bi ñuy génn xale yu góor yi ci ay bidon la ñu tegle di ci génn seen benn maam ku jigéen mag la lool ñu ngi ko yenu moom yërëm ko moom mu yenu photo sëriñ bi ndax bañ mu tooy <laughs> moom ñu ngi ko yenu yenu photo sëñ bi sët bi naa waa maam maam yow yaa ngi yow yow <laughs> xam nga loolu moom moo lay wan ni mooy dugg saxaar ba pare yenu sa bagage dugg oto saxaar ba pare nga war a teg ëmb bi mais nga yenu ëmb bi toog nii yow ñemewoo coon kon loolu moo tax Ibrahim laaj papam ne ko li ma taabudu maa laa yasma wala yubsir wala yugni anka shay'a papa lu tax ngay jaamu lu dul dégg du gis te du la jëriñ kon Ibrahim indi na papam ci xel ñëwul rek indil ko aaya wala xadis mais ci xel la ñëw pour wax ak moom papa ji amul tonto su amoon tonto dina ko tont da koo xool ba ci yàgg xam ni booy bi jam na ko fu sori foo xam ni mënu fa dara dara dara dara dara dara papa ji noppi mu bëgg wan pàppam moom li mu am te papaam amu ko te papa topp doom gàcce newu ci doom topp papa ba gàcce newu ci papa bu nekk da bëgg sa doom gën la bépp papa danga bëgg sa doom gën la kon papa bul nangu seytaane mën la ba sa doom bu jaaree ci yoonu njub di la woo nga naan ko kan nga fi juddu man duma sa moroom duma sa nangam déedéet yàllaa ko defal li mu am top ko ci ya ko fayal mu jang ya ko jàngaloo ya ko mayli kon bu ñewé wax la li war mooy dang ko wara top topp te loolu moom dëgg ne ko bi ya abati inni qad jaani min al ilm ma lam yatik fattabi'ni ahdika siratan sawiya ne ko pap man day dikkal na ma lo xamanteni xam-xam la amna xam-xam bo xamni yow papa amoko te man xam-xam bi ma am ci sama borom la bayiko sama borom momako jox kon papa ñëwal ma tek la ci yoon bi fattabi'ni ahdika siratan sawiya papa top mom ma jubale la yoonu ñup wi ndax ñun ñep mom lañu ut te moy siratal mustaqim kon ibrahim wona papam ci njëriñ xool leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam abu taalib baayam bi mu demee bay waaj a dee bay waaj a dee yonent bi lu ne def na ko abu taalib bëggoon na ko lool bañanu ko dara yonent bi ñëw dernière chance fekk abu taalib di sukuraat mu ne ko eys papa waxuma la sax neel ashhadu anna muhammadan rasul neel ashhadu an laa ilaha illa allah rek kalimatan uxaaju laka biha inda rabbi ne ko baat bii boo ko waxee rek ma taxaw ci sama wetu boroom plaideel la ndax nee nga ashhadu laa ilaha illa allah yéefar yaa ngi toog xam nañ ne Abu Taalib dafa bëgg Muhammad ba lu mu ko sant da koy def ñu ragal ni bu ñu noppee Muhammad Abu Taalib gëm ñu ne ko atargabu an millati Abdul Muttalib ah da nga bëgg bañ diiney mag ñi da nga bëgg a bañ yoonu mag ñi na topp xale bu ndaw bi Abu Taalib xamul nu muy def xool yonent bi rangoo ñu tuuru yonent bi ne ko maam yaa am benn baat laa la ñaan wax ko ma plaidé la ci kanamu yàlla yéefari tamit taxaw ne ko bul topp fan la mujj wa ala millati abdul muttalib ci la dee waliyaadu billah muy safara bu leer ibrahim wax loolu papa ji waaye ñetteelu kàddu gi mu ne papa ji yaa abati la taabudu shaytan إن الشيطان كان للرحمن عصيا نكو أي باب خول يا أبتي إبلاد أي باب تاني خول باب بجيس لطافة بنكتي لإبراهيم ديرينيو آه، أك رشفة بنكتي ديجنتي أك باب يا أبتي أي باب أي باب خول مني يا أبتي لا تعبد الشيطان أي باب بل جام الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا بابا seytaane dafa weddi borom bi dafa moy borom bi papa bu ko topp ndax ibrahim xam na ni bu seetaanee papa mujj gu ñaaw lay am te mujj gu ñaaw mooy dee ci kéefër nit bu deewee ci kéefër daray lu baax amu kon ñetti tomba ngi nii bu ci nekk ibrahim woo na ci papaam di wax ak moom ba ne ko bàyyi bul jaamu seytaane ndax seytaane moo rafetalal papaam muy tabax ay xërëm fa zayyana lahum sheytaanu amalahum seytaane rafetal na leen lañuy topp te baaxut mbokk ñeenteelu tomb bi ibrahim ne bàyyi ci yaa abati inni axaafu an yamassaka azabun min arrahman fa takuna lisheytaani waliya da ko ay pàpp man dey dama ragal yàlla mbugal la nga bokk ci méngoo seytaane yi loolu laa ragal loolu laa ragal papa bugguma mukk mukk nga sàggan ba yàlla di la mbugal àdduna bi papa yàggul dee mi ngi suñu kanam te ginnaaw dee dekki ginnaaw dekki borom bi day fay xisaab moo fa am ak misaan ku fa am lu baax am nga ko ku fa am safaan am nga ko ay papa damay bañ nga nekk mingoowaale seytaane ca safara ndax seytaane ña muy nekkal safara mooy ñi ko toppoon kon papa Yene la loolu waaye papa ji mbokk dëgër bopp bët yi lëndëm seytaane mën ko ba du xool nopp yi diis seytaane mën ko ba du dégg lan la papa ibrahim tont, xoola ñeenti tomb bu ci nekk respect bu mat la ibrahim utiliser pour wax ak kon mun nga ñëw di wax sa papa mu jànni la toogal nga dal jógal dem jógal nga dem beneen yoon nga tàmbale at waxtaan ndax bu meree ne la jógal dem bëgguma la gis jógal nga dem ndax da nga ko bëgg xëtt ci lu baax te moom day gis ni bu la santee defoo kon da koy jaay doole wala da koy jaay kàttan jógal dem jógal dem rek salaamun aleyka sa astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi xafiya papa kon salamu alaykum comme ne nga man adam amul ben problème dem bo togaté ba ci yag ay fan xelam dik nga ñëwaat dabalé waat ko ca tok diko papa ibrahim lan la wax ibrahim qala araghib anta an alihati ya ibrahim la illam lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya allah akbar papa ibrahim ne ibrahim kon yow da bañ sama yàlla yi ñun loolu la ñuy wax da ngeen a bañ mag ñi da ngeen a bañ li fi ndaka indi munu leen a dab ñële nu leen a nangam munu leen a nangam loolu lañ lay wax parce que seytaane moo leen koy waxloo seytaane moo leen koy waxloo su ñu nee mag ñi nag mooy ñi ci xamante ne dañoo woote ci lu jaarul yoon mais ña ca woote la ci jaar yoon taxul ñu wax raagibun anta an alihati da nga bañ sama yàlla yi la in lam tantahi bo yamul bayyi di tudd sama yalla yi la arju man nak danaa la jam ay xex ñom ni ñu toro xale nit moy bu ñu gisee papa jël xeer diko sanni domam moy genn na ko kër gi moy bu ko nit ñi gisé ñepp ah diw de papam toroxal na ko papam génn na ko ñoom noonu la ñu doon jëfee mu nako la in lam tantahi la arjuman so bayyi wul li nga may wax di wax lu baax di wo ci lu baax dana dog ak yow Lele sa yaay ne la bo ki ki ma dog ak yow daf koy wax da mer mais yaay du dog ak dom bàyyi du dogo ak dom mukk da koy wax ndax dafa mer kon demal nga bàyyi ko ba mu dal mu ne ko wax maliya sori ma bu ñewat toroxal ah papa ji nak merna? Merna? dañ bi jóg yenen pa seytaane taxaw fa ki dafa dafa dafa respecté wul bayam ki amul respect parce que ñoo bokk benn club comme ñoo bokk club ñoy dimbalante lolu mo tax ñëpp jàpp ni ibrahim baxul ibrahim ne ko salamun alek yal na gam jam man jam rek moma taxa jox ñewuma pour dara dama bëgg ñu and rek papa nga top ma ndax yowmal qiyam buñu fa dajé di nga xamni am naa loo amul di nga xam yàlla may na ma fa lu mu la mayul kon salaamun aleyk yàlla nga am sa astaghfiru lak rabbi dinaa jël garanti jéggalul la sama borom sa astaghfiru lak rabbi yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wastaghfir lahum jéggalul leen yàlla moo tax yonente bi day toog na yàlla jéggal sama xeet leeg ya yow it del wax yàlla jéggalal sama baay yàlla jéggalal sama yaay jéggalal sama frère salamun aleyk sa astaghfiru laka rabbi dina la jéggalul sama borom innahu kaana bi xafiya sama borom day ku ñëweete ci man la legi nak comme da ngeena jàpp ne li ngeen di jaamu di ngeen ko bàyyi man kon parena ci yéen wa a'tadilukum dana len beru wa ma tad'un ak xërëm yi ngeen di jaamu su ngeen amee xew-xew duma ci ñëw duma masla masla ba ñëw ci seen xew xewu tiaxan yi seen xew xewu bida yi duma ko masla kon mbokk bul masla mukk ba sa wayjur wola ci xew xewu bida nga ñëw ndax masla ndax bida moom mënoo ci amee tiyama bakkaar rek nga ci mën a amee ak lu mënta am kon da ngay bañ moo tax wa adu rabbi mu ne danaa ñaan sama borom te jaamu ko asa alla akuna bi duaai rabbi shaqiya amal na ñaan gi may ñaan yàlla duma ci am naqar mbokk yi xol leen ibrahim lii mu wax papaam wax ko waa dëkkam wax waa dëkkam lu mu leen wax ma taabuduun lan ngeen di jaam qalu naabudu asnaaman fa nadullu laha aakifin ci suara ñun day ay xërëm la ñuy jaamu ibrahim na leen قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون نيغي ngeen وو دي dinañ leen dañ leen di jëriñ wala dañ leen di lor tontu bi yëpp amul de xam nga lu ñu wax xaalu bal aba abaana danoo fekk suñuy papa rek topp leen ñu topp leen bal wajadna ka kazalika yafaaluun dañoo ñëw fekk suñuy papa di sukk di raam ñu sukk raam dañoo ñëw fekk suñuy papa ñëw ci nit ne ko jébbal nañ la suñu bopp ñu def ko dañoo ñëw dañoo ñëw mais amuñ benn texte bu ko wane amuñu benn aaya bu ko wane wala benn xadiis bu ko wane kon nit ñi bëri na di jaamu loo xamante ni duñu ko xam ibrahim na leen laqad kuntum antum wa abaaukum fi dalalin mubin ñu naan ibrahim saaga na xool leen a ne laqad kuntum antum wa abaaukum fi dalalin mubin ibrahim na leen yéen ak seeni baay ak seeni i maam da a jóg da ngeen a réer rek ñu commencé nag saaga nañu gaa yee ko financé dañ ñoo weddi nangam nangam terroriste la daesh la jógee nangam nangam ngir jaxase la ak opinion bi mbokk yi ginnaaw lii ibrahim woo na papam mbokk yi papa ibrahim bañ xool leen fi muy mujj yowmal qiyam nit ñi tiit dekki kenn solul yére góor ñi li jóge woon ci ñoom ci xarfal del siwaat kanam yi poussière ñépp tiit ku ne di ut ndimbal yontu yàlla ibrahim dekk taxaw taxaw ba ci yàgg ndeysaan jékki rek am genn góor gu mage gu ñëw taxaw ci wetam kanam gaa ngi poussière ñàng tilim tarxaquhum zilla tarxaquhum zilla ñépp torox papa Ibrahim bokk ci ñooñu kanam gaa ngi puj mu mel ni ku ñu tëral ci suuf si laxas ko ba ci yàgg bàyyi ko ah bi papa Ibrahim ñëwee Ibrahim mënoon na koo ràmm de comme gaa yi dañuy ràmm seeni taalibeeg seeni kii wayjur moom yonent yi waroon nañ koo mën a am waaye yàlla dalay nettali lii pour nga xam ni ko la ñu dalay ràmm dalay nax Ibrahim kan la xalilullah ah xaritu yàlla te borom xam-xam yi dañuy wax ne ginnaaw yontu yàlla Muhammad yontu yàlla Ibrahima moo ci gën te ay teg fi yu bari indi na ko donte nag doo ko teg waaye dangay xam ni Ibrahima kenn du moom ndax bàyyi la ci yonante bi ndax yoonam la yàlla ni toppal Muhammad yow yoon in anit tabi millata abika Ibrahim mu am ci yàlla mën nga ni yonante bi rek moo ko ëpp pouvoir léegi Ibrahima mënut a ràmm papaam moom papaam ñëw poussière karaw gi tilim. mu tiit xel mi dikk xam ne nag ndeke lépp dëgg la li def bi waxoon da xam ne lépp dëgg la yowmal qiyaam da ngeen xam ne lépp dëgg la wallaay lépp dëgg la yowmal qiyaam ku dekki sa xel ñëw di nga ne ah man la ma gars yi doon wax ndekki dëgg la léegi de war naa cee jéema a dellu ginnaaw papa Ibrahim ñëw taxaw fa ma lana min shafiin wala sadiqin xamim tey amuñu kenn ku ñu ram ah mbokk yi imam yi moo ñuy nettali mu ne yonent yàlla Ibrahim day daje ak pàppaam Azar yowmal qiyaam pàppaam ñëw ci wetam kanam gi sugg poussière mu tiit jàq ñëw nag ay Ibrahim jaaxle naa de sama xel dikk na Ibrahim ne ko alam aqul laka la ta'sini papa est ce waxuma la won buma moy nga topuma papam tontu ko fal yawma tay la a'sik xawma kanje waye tay mom duma la moy tay lo ma sant ma def ko lan papa ji bëgg delu ginnaw legi aayana al haqq legi deug gi ci kanam delu ginnaw ibrahim ne ko dama la waxon papa topuma mu ne ko tay dina la topu tay lo bëgg ma def ko ndax papam tiit na ndeysaan yont yàlla ibrahim taxaw xamul nu muy def yërëm na papa ji papa ji kenn bëggul sa papa di lakk kenn bëggul sa doom di lakk waaye ibrahim taxaw ne ya rab innaka waadtani an la tuxzini yowma yubasuun fa ayu xizin axza min abi l abadi ne ko yàlla yow ya de yaa ma digoon ne ma laa zini yow ma yubaasuun maa la ko ñaanoon ne la yàlla bu ma toroxal mukk bis ba nit ñi dekk ñaanoon naa ko te yaakaaroon naa ne yow yàlla ana ban torox moo gën a nit taxaw di gis papam di lakk te mënu ci dara wallahi dëgg la taxaw sa papa dem safara nga dem àjjana même boo fa demee sa xol du neex nga dem àjjana sa doom dem safara sa xol du neex nga dem àjjana sa jabar dem safara sa xol bu neex sa xol day metti ndax di nga gis ay nit ànd ak seen papa ñii ànd ak seen yaay ñii ànd ak seen jabar nga taxaw ni man an sama papa ana sama yaay wala papa ne ana sama doom loolu dara gënu ko metti yàlla tontu Ibrahim ne ko yaa Ibrahim inni xaramtu aljannata ala alkaafiriin ne ko Ibrahim àjjana dama koo araamal ci yéefër sa papa yéefër la du dem àjjana allahu akbar mbokk yi ndeke yàlla faalewul kenn ci li muy def ah faalun li maa yurid papa ibrahim daa bañoon tey yàlla du xool ci ibrahim pour dimbale ko ndax ibrahim woo na papam gis dëgg bañ bañ bi mu bañ dëgg moo ko indil yàlla ne ibrahim sama àjjana jii dama koo araamal ci yéefar te sa baay yéefar la woon yàlla nañu yàlla musal ci baay bu nekk yéefar Yalla nañu yalla musal ci baye bu topul muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibrahim bëgg fa nek di discuter ak yalla am ben kaddu gu ibrahim ne ko ya ibrahim undur ma taxta rijlayk xoolal su suufu tank ibrahim xol su suufu tampa tankam ndeke papam soppi nañ ko bukki bu torox lool moy moy moy bukki bu ngara non la ko olof di waxe xam nga bukki ñaaw na waaye bu demee màggat bay waaja de lay gën a ñaaw pàppam mel noonu ndeysaan muy bisiix ibrahima ni gis pàppam malaaka yi téye ci geen gi nii tiimale ko jahannam waliyaas billah ibrahima di xool ñu bàyyi pàppa ci cun tun yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon mbokk yi kuy topp sunna day woo ay way juram ku bëgg lu baax day woo ay woy juram wo ay frèram wo ay mbokam yàlla nañu yàlla may deg ak top ak jëriñu suñu xamé lolu danañu xam xamni am nañu droit ak devoir ci war suñu wayjur yàlla ñu yàlla defal tawfiq yàlla ñu yàlla defal nasr yàlla yàlla nangul ñu liñ koy jaamu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina wa habibina muhammad وآله وصحبه أجمعين نوغي ياني يالا تامبالي غي نيو تامبالي لي تي بسم الله يالنا جيخي تي الحمد لله سوكو دافاي ني سوري مانا ديلو تي كريا واجال ان شاء الله ني مانا خار خار ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته